أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ومن اتقاه حفظه في الدنيا وأخرى واعلموا أن صدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أيها المسلمون إن أعظم نعمة وأجلها نعمة الإسلام فهو منهج متكامل تمسك به سلف هذه الأمة وحكموا في سؤونهم آثروا على كل شيء فحقق الله لهم قيادة الأمم فسلكوا فيها بالبشرية الصراط المستقيم وقادوهم إلى مجامع الخير في أمور معاش والمعاجي بما لم يشهد له التاريخ مثلا ولم يعرف له العالم نذيرا ذلكم أن الإسلام حقق للإنسانية كلها الأمن والرخاء والصلاح والتقدم والرقي فهل نعي أنه لا سلاح للأمة اليوم إلا بما سلب إلا بما سلح به أولها أيها المسلمون منذ أيام استقبلنا شهر رمضان بالأمس ودعناه مرتهلا عنا شاهدا لنا أو علينا وفي صبيحة هذا اليوم الغراء يوم عيد الفطر المبارك عدتم إلى ربكم كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعمتم ربكم وأطعتم ربكم فاقبضوا جزائركم من ربكم الكريم ويوم القيامة ينادى عليكم أيها الصائمون ادخلوا الجنة من باب الريان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله هذا يوم يظهر فيه المسلمون ذكر الله تعالى والتعظيم والثناء عليه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا يوم عيدكم يوم فرح وسرور بعبادة رب الغفور وليس يوما وليس يوم عباد الله هذا اليوم وليس يوم تحلا من القيود الشرعي ولا تيا لبساط العبادة ولا هدما لبناء الأعمال إذا فلنحذر فلنحذر أن نبارز الله بالإسيان في هذا اليوم وفيما بعده باستماع الحرام أو النظر إلى الحرام أو الكلام الحرام أو اللباس الحرام فاحذروا فاحذروا فاحذروا جوارحكم واشكروا ربكم لتستعدوا برداه أمة الإسلام أعداء الإسلام بالأمس هم أعداؤهم أعداؤه باليوم وعداوتهم قديم وقد حذرنا الله منهم فقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هم الذين لا يرضيهم سوى إذلالنا إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi seedee di kennal di gëm di wéral di dëggal ne moom yàlla tabaraka wa taala moom dong lañ war a sant moom dong lañ war a màggal moom dong lañ war a bàkk moom dong lañ war a kañ allahu akbar ñoo ngi seede ne war ñoo jaamu kenn ku dul moom ñoo ngi seede jaamu dëgg gi ñuy wax jaamu mooy li mu santaane ku ko jaamu nekk ci dëgg ku ko ñàkk a jaamu daa di jaar ca mboy mboy la yéen jaami yàlla yi ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dénk képp ku mooy tandiku daa di jaar ci yoon wu wér wi képp ku daa di soobu yoonu ñal yi kooku jaar na yoon bi ko borom bi tabaraka wa taala di alagee ëllëg na ngeen yëg ne yéen jaamu yàlla yi wax ji gën a dëgg ji wax mooy waxi yàlla tabaraka wa taala njub gi gën a wér mooy njubal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ngeen moytu lépp lu ñu sos lépp lu ñu sos bidaa la lépp luy bidaa réer la lépp luy réer ak boroomam ëllëg safara la ñuy tàbbi mbokk yi na ngeen yëg ne kattanu jullit yi kattanu mbooloo jullit yi yàlla tabaraka wa taala mooy loxoom te mu ngi ko teg ci mbooloo mi yadullah ma aljamaa islam dafa bëgg jullit yi mbooloo yonent yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaar ci jullit ñi mu ne wa aleykum bil jamaa maa ngi leen di dénk ngeen nekk ci mbooloo mi fa inna yada allahi ma al jamaa loxo yàlla tabaraka wa taala mi ngi ànd ak mbooloo mi yéen jullit ñi nañu yëg xéewal bi gën a rëy bi ñu yàlla tabaraka wa taala defal mooy xéewalu lislaam amul xéewal bu gën a rëy bu ab jullit am te du lislaam xéewal bi gën a rëy yàlla tabaraka wa taala xéewalal ko ummatu sayyidina muhammad mooy ñuy dund ci lislaam moom lislaam boobu aw dundin la wu mat amul lenn lu ci mat moom lislaam boobu ci la magi démb yi jàppoon gëm ko looloo taxoon ñu gañe adduna bi adduna bi yëpp ñu koy dundal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam génnul adduna lu dul islaam yi dana golf bi ci ay waxtu yu néew drapeau la ilaha illa allah dinaaw muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di atte li ko waraloon mooy ñoom dañoo gëmoon diine jooju tudd lislaam ñoom salafu saalih yi ñu atte woo téere bi seeni mbir yëpp li ci gën a tuuti ba li ci gën a rëy ñoom jullit ñi ñu gëm ne lislaam bi leen yàlla jox mooy dëgg ba ñu ko dëggalee yàlla dëggal leen mbokk yi ñoom ba ñu jiitee ba ñu dundee lislaam boobu yàlla tabaraka wa taala def ñu jiite xeet bi yàlla def ñëpp ragal leen loolu loo ci dégg mooy nit bu ragalee yàlla lépp lu dul yàlla da lay ragal waaye boo ñemee yàlla lépp lu jóg da nga koy ragal ku ragal yàlla lépp lu dul yàlla tabaraka wa taala sa doole mooy mooy féete loolu ci kaw mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala histoire bind na ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ñoom day seen jamono jamono saxaaba yi Aboubacar Omar Ousmane Ali ñoom dañoo jiite woon àdduna ñoom dañoo doon sangu àdduna yi xoolal Omar radiyallahu anhu wa arda buuru Kisra dégg na ko wala buuru Kaysar wala buuru Rome yi kenn ci ñoom dégg na Seydina Omar mu tiit ci ay mbiram ba mu yónnee benn man duum benn waayam demal nga xoolal ma Omar bi tere adduna bi nelaw moom mooy kan waa ji wàcc Madinatu Munawwar soobu ci mbedd yi di laajte fu mu jaar ana amirul muminin ana Omar ñu ne ko jaar na nii ana Omar jaar na nii ba mu egg ci marché bi ana Omar ñu ne ko mbedd mi la jaaroon ana Omar ñu ne ko mooy waajee tëdd ci suufu garab bi mu ñëw fekk Omar tëdd ci suufu garab lanul si jaarne ci suuf si la tëdd mi ngi njagaanaayoo ñaari dàllam mu daal di ñëw tiim ko daal di yéemu ab président de la république am njiit bu toll ne Umar ibnul Xattaab ar-Raashidu Saani mooy ñaareelu xalifa yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fi mu ko fekk mu tëdd mu ne ko xakamta wa adalta wa aminta wa nimta yow Omar xakamta atte nga wa adalta bi nga atte nga maan wa aminta nga am kóolute bi nga amee kóolute nga ñëw tëdd fii ci suufu garab bi fa nimta nga daal di nelaw allahu akbar loolu mooy lislaam ñun ñëpp tey bu nu yàlla doon dimbali sallallahu alayhi wa sallam waxoon loolu mooy ñu mooy moo moo ñu dal moom la ñuy am waaye tey lu ñu gis mooy ay jullit yu tasaaroo ay jullit yu def ay mbooloo mbooloo ay groupe groupe kullu hizbin bimaa ladayhim farihun kenn ku nekk la nga nekk mooy la lay bégloo xoolatoo diine ji lu koy avancé loo xoolatoo sunna yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lan moo koy dëgëral xoolatuñu noon yi nekk benn def benn sappe di dóor jullit yi dëkk bu ñu dóor bu boobu bu ñëw faatoo ñu daal di song beneen dëkk dëkk par dëkk gox par gox mbooloo par mbooloo tey lañ ñuy dóoree ñu fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na ci hadis boo xam ne day tekki ne yonent bi dëgg-dëgg yàlla tabaraka wa taala moo moo ko yónni yonent bi moo toog ba ci at mu ne maa ngi nii seen yahud ak nasaraan di jiiroo jullit yi comme lu ñuy jiiroo boolu ceeb saaba yi daal di fit ne ko anahnu qillatun yawma idin ya rasulallah xanaa day fekk ñu tuuti ñu nekk juróomi nit fukki nit ba ñuy jiiroo ñun ñi nga xam ne alquran moo ne bu ñu nekkee téeméer xeet ak ñaari téeméer bu ñu nekkee ñaar téeméer xeet ak ñeenti téeméer bu ñu nekkee junni xeet ak ñaari junni naka la ñuy demee tey ba ñuy jiiroo mu ne bal antum yawma idin kathir walakinnakum gusaaka gusaau sayid sallallahu alayhi wa sallam da ngeen a bëri lool waaye da ngeen a mel ni puurit tey un milliard lañ ak genn wàll jullit yi bëri nañ wala bëri wuñ bëri nañ lool waaye misaal yeneen bi ne comme puurit ngeen mel yeneen bi ne du ko waral mu ne ñaar la yàlla rocc ci seen dënd yi dugal ci ñaar ndax man yonent nu siiru bi bi rox bi masiratu safir man ku ma attaqué woon guerre su ma ne woon nit ñi maa ngi ñëw weeru yàlla balaa may ñëw ñëw ñu dañuy tiit balaa may yéeg man loolu man yonent bi la ko yàlla defal tiitaange googu yàlla defoon ci ruu ci xolu yéefar yi moom yàlla yàlla rocc mu ne yéen nag yàlla dugal seen xol yi bëgg àdduna hubbu dunya wa kirahiyatul mawt bëgg àdduna ak ragal dee sahaaba yi moom yàlla dafa defoon bëgg dee ci seen dëgg suñ daan xeex ak mbooloo yi lu ñuy wax imma shahada wa imma nasr benn su ngeen ñu bàyyee ñu samp kàddu yàlla su ngeen ñu ree ñu daal di dugg aljanna moo tax ñoom kenn mënul woon taxaw ci seen kanam xool leen amr keroog ba mu demee ci kanam rustum ca Qaysar rustum ne ko yéen bu ngeen di wut mu ne ko jig naa li nuxrijakum min ibadati l ibadi la ibadati rabbil ibad jig naa lu nuxrijakum min diiqi dunya ila siati l axira jig naa li nuxrijakum ila hadihi dunya addayiqa ila jannati l firdaws alwasia ñun dañoo ñëw pour génne leen ci jaamu gi ngeen di jaamu doomu aadama yi yóbbu leen ci jaamu yàlla ñun dañoo ñëw pour jële leen ci adduna bu xat bi pour yóbbu leen ci alaxira bu yaatu bee dañoo ñëw ci jële leen ci topp bi ngeen di topp mbindeef yóbbu leen ngeen topp yàlla mu ne ko waaw su ngeen ñu waxee ñu bañ lan mooy nekk suñu digganteeg yéen mu rocc jaasi bi ne ko kii mooy nekk suñu digganteeg yéen allahu akbar rustum ne ko xanaa yow yaay seen amir mu ne man maa ci gën a ndaw man dañ maa yónni rek te man li may wax ak yow su ma demee loolu laay delloo amir te li ma wax ak yow fii loolu mooy li am rustum ne ko demal ñu xool suñu mbir après ñu ngi yónnee xoolal ñooñu mbokk yi kan moo leen yaroon teraanga boobu nga xam ne ñëpp a ragaloon jullit yi tey lan moom dal tey lan moo ñu jot taqalikoo farfarloo kenn ku nekk bu fekkoon ne l'islam ab nag la ñu nekk rey nañ ko ba fees ko saam ko kenn ku nekk yóbbu saam sa kër di wax ne maa ci gën a tuufle ibadallah ayuha almuslimun mundu ayamin istaqbala shahru rama istaqbalana shahru ramadan depuis ay fan yu néew xam ngeen ne ñoo ngi doon wax ne weer wi kañ la weeru koor kañ la ñu ne des na ay fan weeru koor kañ la des na ñaari fan weeru koor kañ la des na benn fan weeru koor kañ la suba la ñuy woor weeru koor kañ la ñu ne jeex na tey weeru koor jeex na tàggu nañu démb démb yóbbaale ay tiyaaba yóbbaale xéewal mu nekkoon mawsim waaye weeru koor dem na mu nekk shahidan lana aw alayna mu ñuy seede ëllëg wala mu ñuy àtte ëllëg mu lay seede ne yow wooroon nga sellaloon nga jaamoon nga yàlla naafila woon nga soo dee dugg àjjana asamaan si dix mille rek lay taw asamaan si ay biir cinq mille rek lay taw kan ci ñun mooy bëgg nawet boobu jeex kan ci ñun mooy bëgg weer woowu jeex weeru koor dafa nekkoon weer woo xam ne ci ñun weeru tiyaaba kese lan la ñu yonent yàlla Muhammad wax dañuy tëj bunti safara ubbi bunti aljanna yeew seytaane daan ne yaa aqbal yaa aqbal alxayri aqbil wa yaa qaabidu charri aqsir e yow def kat lu baax bismillah bëril yow jullikat yow jàngkatu Qur'an yow jaamukatu yàlla yow jàng zikrkat na bëri aqbil aqsir na bëri jegesil na bëri mais ñu ne ca wàllu weneen yi malaaka yi jaar ci mbedd yi naan yéen def kat lu bon yi arrêté leen weer wi du weeru def lu bon ñee jaar ci mbeddu ndeyjoor yi naan yéen defkatu lu baax yi bismillah bëril leen ñee jaar ci mbeddu càmmoñ yi naan yéen defkatu lu bon yi arrêté leen ñun ñëpp ñuy namm weer woowu jeex lu ko waral mooy ñàkk xam mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala wa fi sabihati hada al yawmil azar ci bis bu weex tàll bu set bis bi tey mooy yawmu idul fitri muy bisu dog bis bu dog bu am barke bi borom bi tabaraka wa taala di ci jàkkaarloo ñun di ñu sotti ak xéewal di ñu fay di ñu jox kado ndax la ñu taxawoon ci woor ak naafila yàlla mi leen santoon ne leen woor leen ngeen woor yàlla mi leen santoon ne leen julli leen ngeen julli yàlla mi leen doon sant ne leen jàng leen Qur'an ngeen di jàng yàlla mi leen santoon ne leen bëri leen zikri ngeen doon zikr borom boobu tey moom mooy jàkkaarloo yéen di leen takkal diplôme gis nga tey défilé bu amee da ngay gis ñi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci soldat yi dañ leen di defar ci place bu rafet solal leen yére yu rafet njiitu réew mi moo ñëw di leen takkal ay médaille parce que ñii ñoo gën a ràññeeku ci liggéey kon yéen it dégg leen yéen ñi doon woor ngir yàlla yéen ñi doon naafila ngir yàlla di jàng Qur'an ngir yàlla di zikr di sujjóot di jooy ngir yàlla dégg leen bisu tey bi di ngeen jàkkaarloog seen borom mu takkal leen ci seen dënn diplôme boobu tuddoon taqwa te ngeen doon def stage ak formation pour am ko te mu waxoon leen la'allakum tattaqun ibadallah yéen ñu doon woor na ngeen bëgg xam ne bisa ngi ñëw allahu subhanahu wa taala dina leen dajale ci benn barab ci pak mu ne ayyuha saa'imun ana ñu doon woor ñu ne ñu ngi nii taxaw mu ne udxulul janna dugg leen sama kër gi tu tudd aljanna tey waaye li yéeme li neex mooy malaaka yi ñoo leen di ubbil bunt bu tudd rayyaana yàlla mu ne jaar leen fii yéen rek yéen a fii jaar ku woorul woon du fi jaar mbokk yi bu fekkoon ne woor weeru koor benn tiyaaba bi kese kese kese kese la doon doomu aadama di ci am jar na fekkoon ne benn bi kese mooy lan yow man xiyaam nga ñëw taxaw ay na saa yi ñu ne ñu ngi nii taxaw ñëpp jóg daal di nii taxaw ku nekk di la xool ñu defar yére yi defaraat bagage yi jël jël saak yi ana ngeen ñu ne ñu ngi nii malaaka yi ubbi buntu bi daal di leen dugg leen loolu loolu doy na bu fekkoon ne bi kese jaroon na ñuy woor ba dee lii rek mbégte la tey bu pourtant bu fekkoon ne ñun ay militants lañ ñu ñuy recevoir benn président parti bi ñu recevoir daal ne ana sama militant yi ñun ñëpp dañuy yàqal di jóg taxaw ne ko ñu ngi nii monsieur le président ñoom nag mu ne bismillah dugg leen ci saal sa saal bi gis gars yi dugg kanam yi leer ak allahu subhanahu wa taala natt leen ko foofu ndax foofu sax moo gën a ndaw donte ne waruñu ko fa natt waaye dafa gën a ndaw ñu xool yàlla tabaraka wa taala jàkkaarloog ay jaamam ne la ana ñu doon woor ñu leen ñu ngi nii mu ne dugg leen mbokk yi ci yàlla bisu tey bi ibadallah hada yawmun yuzhiru fihi almuslimuna dhikra allahi wa ta'zimahu wa sanaa alayhi tey bisu tey bii depuis démb biñ neewee bi feeñ na ba bisu tey bii dinañ ci ba bi ci jullit yi ñuy kàbbaaral yàlla tabaraka wa taala allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd borom bi ne wali tukab wali tukmilu al iddata wali tukabiru allah ala ma hadakum wa laallakum tashkurun ibadallah hada yawmu iidukum yahud yi di feetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne jullit ñi bu leen feetu feet bi bi mu leen laajee lii lan la ñu ne ko bisub tey bi la yàlla rabaloon sunu noon bu tudd Firawna yàlla rëccal sunu yonent bu tudd Muusa ñuy sant yàlla di feetu bis bi mu ne yéen jullit ñi yàlla saaseel na leen feet bi ñaari feet feetu korite ak feetu tabaski feetu korite mooy tey bii bisub lan la yow mu farahin bisub mbégte wa surur bisub kontante lu tax bi ibadati rabbil ghafuur parce que yow da nga doon jaamu yàlla war nga kontaan tey war nga kontaan ndax tey mooy bis bi nga xam ne yàlla da lay jox sa diplôme mbokk yi ku doon jàng atum lëmb ba at bi jeex nga dem def examen nga passé suñ lay jox sa diplôme ñu woo ñëpp toog ndeysaan nga dégg ñu ne diw ba gis la jàll nga gis yuuxu yi allahu akbar nañuy natt suñuy dund nañu natt suñu dund ci suñu suñu alaaxira nañ ko natt ci suñu dund adduna xoolal ñooñu noonu ñu bëggee te lan moo tax waa ji bëgg di yuuxu yenn saa yi sax nga gis ñu wax turu kenn mu xëm ndax kontaan te lan la benn këyit bu ñu sémbool benn këyit la di ñu def ci lan ah ne décoré nañ ko waa ji ndeysaan am na diplôme bi ngi nii ci adduna kesel adduna benn war a xala adduna yow nag lii dalay may taraanga adduna di la texeeloo àllaaxira ci kanamu yàlla nga dara dugg kër goo xam ne malaaka yi dañ lay xool ne la xaalidiina fiiha abadan fii ngay noose éternellement vie éternellement dund goo xam ne amatul jafe-jafe adduna ñenn dem àll ba dara doo ko too ko defati allahu akbar moo tax malaaka yi nga xam ne ñoo xam dund googu bu gaa yi di dugg lan la ñuy wax tibtum xeeñ ngeen neex ngeen udxuluha bi salaamin dugg leen ci ak jàmm salaamun aleykum yàlla na jàmm nekk ci yéen allahu akbar loolu la malaaka yi di leen wax mbokk yi ibadallah tey bisu mbégte la bisu kontaan ndax da nga doon jaamu yàlla war nga kontaan waaye wa yawma wa laysa yawmu tahallan min quyudi shari nekkul tey da ngaa tekkeeku ci sharia de allahu akbar nekkoo dañ laa takkoon ñu def attention bu baax sunu bisu tey bi nekkul bis foo xam ne dañ cee tekkeeku maanaam dañ ñoo yeewoon léegi yeewee nañ ñu dañoo war a am liberté commencé képp ku doon def lu bon nga ne non xëy ko jeex naa diidi nekkul bisu tekkee ku dégg diine laay waxal ma ne bisu tey nekkul bisu tekkee ku góor ak jigéen mag ak ndaw bu kenn ne lu ma nekk xool ah léegi weer koor jeex na lu ma nekk xool lu ma neex déglu lu ma neex laal lu ma neex lekk fu ma neex dem fu ma neex topp déedéet tekkeeku woo ki la tënkoon ba léegi moo la tënk ki la yeewoon moo la yeewoon parce que yow bul fàtte da ngaa am frontière buñ lay fo- soññuloo yow amoo droit këtt frontière bi wa tilka hududullah fala taqrabuha wa man yataadda hududallah tooñoo yàlla de yàlla mu ne faqad zalama nafsa tooñoo ma soo reppee ba xëcc sama frontière tooñoo ma man yàlla waaye sa bopp nga tooñ te bala ngay xam ne sa bopp nga tooñ nga dugg bàmmeel ibadallah bisu tey bi nekkul bis boo xam ne dañ ci noppalu ci jaamu yàlla ginnaaw bu ne bu yaakaaree ne dañoo feccee non léegi weeru koor jeex na nañ bàyyi ñiyaamu léegi nañ bàyyi taxawaay yu yàq yi nañ bàyyi rukoo yu yàq yi nañ bàyyi sujjóot yu yàq yi nañ bàyyi ñaan yi nañ bàyyi toroxlu yi déedéet bal yow dama doon def formation pour les passé woon na ci jamono bi nga woorul sa sa rakk yi nga daan gàttal sa rukoo yi nga daan gàttal sa sujjóot yi sa njàng mi nga daan gàttal yooyu tey da nga doon def formation pour nga tàmm tàmm taxawaay bu yàgg tàmm rukoo bu yàgg tàmm sujjóot bu yàgg tàmm taaya bu yàgg tàmm jaamu yàlla bu sell bu kenn ci ñun wax ne léegi nag gars yi na ngeen delluwaat ci innaa taynaa ak wal asri na ngeen ñu musal ci Baqara ak Aali Imraan bu kenn ci ñun wax ci loolu dañ doon def formation bu fekkee ci ay naafila nga daan yàgg ngir bëgg yàlla nangu ko mag sama farat bu fekkee ci naafila nga daan sonn pour yàlla nangul la ko fa kayfa bi fariida foo jëm ak farata yi kon ibadallah mbokk yi ci yàlla yéen ñi doon tabax ana maçon yi yéen ñi yoroon ciment yor seen jël seeni sikk ak seen mars di màbb bu kenn wax ne tabax bi nañ ko daaneel ñun ñëpp dañ doon tabax ci weeru koor dañ doon tabax jaamu yàlla julli koor jàng alquran tudd yàlla mooy tandiku lépp lu bon bu ñu tabax tabax bi ba mu taxaw ñu delluwaat yor sunuy kuur wala tahdim al bina bul màbb tabax bi bul yàq jëf ji idan fal naxzar nañu mooy tandiku nañu mooy tandiku dafa am benn mag ci salaf dafa romb ay nit yu organiser soirée ci bisu korité mu ñëw dugg ci biir ne leen asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam mu ne may ngeen ma ma jël kàddu ñu ne waaw mu ne est ce que yéen wooroon ngeen ñu ne way ñun ñëpp wooroon nañ macha allah ñun ñëpp woor kenn dogul yal na leen yàlla nangul ñu ne amin mu ne est ce que yàlla nangul na leen ah wóoruñu de mu ne bu leen yàlla nangulee est ce que nii lii ngeen organiser noonu la ñuy santee yàlla ndax da ngay woor boo koor gi jeex nga organiser soirée ñoom kaay ma sant yàlla noonu la ñuy santee yàlla mu ne bu fekkee yàlla nangulu leen est ce que kon waroon nga nga woor ba ba koor jeex yàlla ne la yow nangulu ma la ba pare ngay organiser soirée encore te ñaar rek moo fi nekk woor nga ba koor gi jeex nangul nañ la wala nanguluñ la suñ la nangulee du la war yokk jooy sahaaba yi dañ daan toog ñetti weer di jooy ngir yàlla nangul leen ñetti weer di jooy ndax yàlla nangul leen te xoolal xiif nu mu méttee xoolal mar nu mu méttee mbokk yi demal nga toppatoo sa këyit mu utal la liggéey waa ji dem toppatoo këyitam dar dari fu nekk mu dugg fa këyit bu nekk mu fay ci taxaw rang fukki fan ak juróom waa ji di liggéey ñoom jox la këyit nga daal ne ko mais bon nañ ko bàyyi ba beneen yoon kooku dina kontaan ci yow tontu bi mooy déedéet mooy lii ñu bëgg a def mooy lan dafa ne ñu tey bu ñu wóoroon ba koor gi jeex yàlla ne nanguluñu nan lay mel ci ñun xoolal li nga xiif weeru yàlla ngay kii di julli di mag yàlla ne la nangulu ma la kon yow lu la war mooy nga góorgóorlu toroxlu pour yàlla nangul la su la yàlla nangulee yaag tey waroom yéen a fi nekkoon yàlla nangul la nangulu leen yow lu la war mooy nga sujjóot sant yàlla ndeke kon lii waa Sénégal di sant yàlla tey ak suba déglu leen rajo yi soirée day commencé lamb yi commencé ban sax bàyyi wuñ ko woon maanaam sax bàyyi wuñ ko woon sax nag bàyyi wuñ ko woon loolu lañu yàlla nattoo mooy bàyyi wuñ ko woon allahu akbar waaye mbokk yi yéen ñu ko bàyyi woon ngalawaay sax leen lu gën a dëgër montagne yu waxut nu mu saxee ci jaamu yàlla da nga xam ne yéen a nekk ci dëgg dëgg du ay groupe du ay mbooloo du ay gox kun lil xaqi abdan wa abdil xaqi xurran al xaq min rabbik fala takunanna min al mumtanin nañu bég xam ne ñoo nekk ci dëgg jarul xëccoo jarul xuloo dëgg benn kese la te mooy li yàlla indi woon yonent yàlla Muhammad indi ko sallallahu alayhi wa sallam yow jaamu yàlla bi taxawoon di woor na nga moytandiku fal naxdar nahnu jamian an nubaarida allaha bil isyan fi hada al yawm dañu moytandiku jàkkaarloog yàlla di ko moy ci bis bii bis bu tedd bii bis bu am barke nañu moytandiku di jàkkaarloog yàlla di ko ci moy waaye ci bis bi ak beneen bis ci déglu lu araam xool lu araam sol lu araam lekk lu araam dem ku xaraam ci bisu tey bii nanu mooy tëddiku dem lu xaraam am na ñu koy organiser léegi nanu mooy tëddiku sol lu xaraam am na ñuy ñawi léegi yow borom kër gi xanaa di nga rus woor ba koor gi yeex nga jox say doom ne leen dem leen ngeen ñawi lu xaraam jabar yeeg doom yu jigéen ñi ñaata ci ñun tey ñooy bërti bërti di buuxante première sàppe deuxième sàppe ci jàpp yi te boo demee seen kër fekk lépp lu xaraam la ñuy sol yow doo rus loolu ndax jàngoo ci quran yàlla mu ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha annaasu wal hijaara alayha malaa'ikatun ghilaazun sidaad laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun ibaad allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kathiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asila إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها المسلمون لقد شرع لكم نبي الهدى بعد رمضان ستة صيام صيام ستا من الصوال فصومها وحافظوا على الصلوات في وقتها فإنها أول ما تحاسبون عنه يوم القيامة ومن لم يؤدي فريضة الحج بعد فليؤديها إن استطاع قبل أن يحال بينه وبينها ثم استوصوا بالوالدين خيرا وترحموا على من مات منهما تهبوا أبناءكم وصلوا أرحامكم وصلوا أرحامكم وأقاربكم واحذروا قطيعتها فإن صلتها من الإيمان والرحم معلقة بالأرش يقول الله تعالى- تبارك وتعالى ألا تديني أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك mbokk yi ci yàlla ginnaaw bu ñu santee yàlla tabaraka wa taala moom yàlla bi nga xam ne waa jii di jóg di góorgóorlu di jaamu yàlla di rukkoo ak a sujjóot yàlla la neex mu dëppale waa jooju mu koy def mbokk yi bu leen yaakaar ne yéen ñi doon woor yéen da ngeen a am ngóor góorlu goo xam ne da yéen daf leen a neex rek ngeen woor déedéet ñun ñu doon def ci xiyaamul layl yi bu ñu yaakaar ne dañoo amoon ñoom ak ngóor góorlu ak fulla bu ñu ko yóbbee suñu bopp déedéet dafa neex yàlla rek yàlla moo ñu orienté yàlla moo ñu jubal ci loolu ginnaaw ba ñu jógee sa benn effort bu ndaw walladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana da ngeen a jóg ne yàlla ñu ne dañoo bëgg baax yàlla mu ne yoon waa ngi nii kon yéen ñi jaaroon ci loolu ñu sant yàlla mi nga xam ne moom la neex ñun ñu jaar foofu ñu seede di wóolu di gëm di dëggal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu bi nekk dëgg ku dul yàlla tabaraka wa taala amul benn yonent amul kenn ku ñu war a roy di ko toppandoo ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ñu sant ginnaaw woor weeru koor woor juróom-benni fan ci weer wii teru tey tey nekk premier muy sawaal juróom-benni fan yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sunnaal ko ci ñun bu lox weeru koor jeex na léeg-léeg nga dégg ay jullit naan man du ma bëree mbapat saa yoo déggee ku ne man du ma bëree mbapat mooy ku dul woor sitta sawaal du woor lëndi du woor jeudi du woor ayaamul biir du woor bisu arafaat man daal weeru koor kese doy na mais ñun war nañu xool suñu bopp lu tax ñu tayal ci jaamu yàlla lu tax sabaruñu ci li jëm ci yàlla te bu dee yëpp adduna ñuy ci rey suñu bopp fi mu nekk nii dañ doon wax wóor gi wóoru koor gi kañ la yéen ñi toog fii tey ginnaaw bala ngeen di ñëw jàpp naa ne dundal ngeen sunna yonent bi parce que lekk ngeen ay tàndarma bala ngeen di ñëw fi wala ndékki ngeen tey fi ñu toog kenn ci bu la dégg ñu ne la yow est-ce que mën nga woor looy tontu moo ngi mel ni musoo mar moo ngi mel ni musoo xiif loolu lañ naan ñam dee gàcce de ana ñu doon ndékki ana ñu doon añ lan lañ ñu woo pare ndax ñun dañoo jeex wow kon bal sax ñun ñoo leen ëpp yaram bal ñun ñoo leen ëpp tiyaaba lu tax ñuy tayal ci jaamu yàlla lu tax weeru koor jeex na mais des na koor jeexul de ci te sawal mu ngi ni suñu kanam bi ñu sonn ginnaaw bu ñu noppaloo tey ak suba wala ginnaaw suba ñu attaqué ci te sawal su jeexee ñu attaqué bi su lëndi yonent bi yàlla Muhammad da doon war lëndi war ci te sawal lan mooy tiyaabaam wala yàlla di defal mooy mu baal la bàkkaar bakkaaru at ñun ñëpp dañoo fees dala ci bakkaar del bakkaar yi bu ñu mënoon a wax su bakkaar yi mënoon a wax laa ilaaha illallaah kon ku génn bu taxawee ci kanam nekk imaam gaa yi ne ko eh eh eh kaay bi kaay bi te xawal nii gisoo di nga yor boo kenn bakkaar yi dañuy feeñ billaahi wallaahi di nga gis ku taxaw ci kanam mbooloo si mbooloo mi dañuy ñëw simpi la teg la nee kon kenn taxaw ci kanam nit ñi waaye sutura bu ñu yàlla làmb muur nu ko ngay tuub di tarxiis di jéggulu yàlla istaghfiru rabbakum innahu kaana gaffaara yonent yàlla Muhammad nee na yàlla dafa bëgg ngeen di tuub seeni bakkaar yàlla bu ñu tuubee yàlla day kontaan ba mel ne waa ji demoon ci àll yor mbaama gëléemam def ci lekkam ak naanam def ci bagage am waa ji tëdd ci nelaw ci benn garab gëléem gi dem yoonam mu yeewu gisul gëléem gi te fa mu jógee mënu faa dellu fa mu jëm mënu faa dox ak tànk mu ne xaar ma tëdd ci xaar dee mu tëdd nelaw mu yeewu gis gëlëm gi taxawaat di lekk ci xobi garab yi mu kontaan langaamu langaamu gëlëm bi jàpp ci nas bi daan ne yàlla yaay sama jaam man maay sa borom ndax kontaan bu mu kontaan waaye ji lan la bëggoon wax yàlla maay sa jaam yaay sama borom mais mu ne yàlla yow mii yaay sama jaam man mii maay sa borom ndax kontaan bu mu kontaan su nit tuubee dellu ci yàlla yàlla mooy gën a kontaan waa jooju mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaan na ci ñun ñu woor sitta sawaal nañu ko woor waaye nañu respecté waxtu yi imagineel yow benn jullit nga woon boo xam ne weeru koor gi yëpp jàkka nga jullee fajar tisbaar takkusaan timis gee lépp jàkk weeru koor jeex nga commencé biddali fi mu nekk nii léegi jàkka yi commencé bidd léegi ngay ñëw ci jàkk fekk ñaari ran ana jullit di doon feesal jàkk ji ci weeru koor gi hafizu ala salawat yàlla dee respecté leen julli inna salata kanat ala almuminina maada kitaban mawqut julli farata la boo xam ne dañ ko utal heure jaamu yàlla yi bu kenn ci ñun delluwaat di tardeel waxtu yi bu kenn ci ñun delluwaat di doon mbokk bu kenn ci ñun delluwaat di dënge ndeyam ak baayam ginnaaw ba nga nekkee ci weeru koor di déggal sa ndey ak sa baay nañu yërëm gone yi nañu yërëm ñi dee ñuy wax ci seen der bu rafet ku dee kenn du wax ci ginnaawam lu ñaaw même boo ko ko xamaloon amoo droit wax ko bu fekkee ab jullit yeneen ci bi nee na ngeen noppi ci yu ñaaw ci seen ñu dee ñi waaye na ngeen wax uskuru mahasinahum na ngeen wax yu rafet yi ñu doon def kon nañu dindi suñu làmmiñ ci néew yi nañu yar suñu doom nañu yar suñu doom wax nañ léegi aaya bi yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen ñi gëm yàlla musal leen seen bopp safara musal seen njaboot aaya bi bu mu wàccee dafa am saaba bu ko dégg jooy saaba yi ne ko looy jooy mu continuer faale wu la ni ñoo bokk yeneen bi ne ko diw démb ba léegi mu ngi jooy yéen bi li ñuy jooy ñu ne ah alquran de moo ko doon jooyloo bi aaya bi wàccee mu ñibbi ba léegi mu ngi jooy yéen bi woo ko ne ko yow dégg naa dem ba léegi say rongoñ terul mu ne ko naam ko limaada mu ne ko ajaztu an nafsi wa kullitu an ahli man damaa bëggoon dugg àjjana mënumaa dugg yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw loolu mooy duma dugg nañ leen xool nag saxaaba ak ñun tey sunu soxna yi sunu doom yu góor yi doom yu jigéen yi bépp doom tey bëggoo nekk jullit colu yéefeer la ñuy sol colu nasaraan soppi yaram yi soppi ba soppi xef yi tey jigéen ñi lépp lañ soppi yéen ñi nga am doom yu jigéen ñi seen doom yu jigéen ñi nekk ci mbedd yi di taxawaal soppi seen i xef soppi seen i yéen soppi seen i bëñ soppi seen i kawar soppi seen i yaram soppi seen i yére laa ilaha illallah yéen bu ngeen taxawee ci kanamu yàlla yéen it taxaw ngeen responsabilité bi yéen yàlla ci kayoom allah waqifuhum innahum mas'ulun saaba bi jooy yonent bi lan la ko wa hasbuka an taamuruhum bi ma taamuru bihi nafsak an taamuruhum bi ma taamuru bihi nafsak doy na ci yow li ngay digal sa doom li ngay def ci lu baax nga digal ko sa doom mais am na ci ñun ñoo xam ne ay dayyuus lañ yonent bi ne laa yadxulul janna dayyuus wa saalahu ashaabuhu alkiram ya rasulallah man huwa dayyuus qaala alladi yuqirru fi ahli wa fi riwaaya alladi yarda alxubusu fi ahli borom kër goo xam ne instant bii ñu toll xale yaa ngi ko rang papa soirée lañ jëm papa dancing lañ jëm naari club diw mooy tëgg fële diw mooy soirée diw mooy sabaru papa papa papa muy génne yow ñaata dix mille bon dama leen di gâté parce que c'est la fête la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yow xamoo yow yaay kan yow bàyyi ji yow xamoo li taxoon yàlla bind la yow déggoo yeneen si ñu ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ibadallah an yasudum mbokk yi wasilu arhamakum nañu jokk mbokk wahdaru qati'atiha nañu moytandiku dakk mbokk mbokk keroog bi ko yàlla di wàcce yàlla de ko ne ku la jokk ma jokk ko ku la dagg ma dagg la ibadallah ahsinu ila al aytam nañu rafetal ci jirim ñi wal aramila wal fuqara wa awful kayla wal mizan wajtanibul ghissa wal kadhiba fil bay'i wal shira وابتعدوا عن الغيب والنميمة والكذب والغش والخضاع وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر mbokk yi nañu rafetal ci jirim yi nañu yaram ci seen borom kër yi paas ee yéen mbokk yi léeg-léeg nga nekk ak ay nit di dund ñi dund sunna laay waxal programme bi ñoo ko moom léeg-léeg nga nekk ak ay nit di dund nga dee gaa yi fàtte sa waa kër kenn du ziyaare yi say soxna kenn du ziyaare yi say doom kenn du di jël sa asaka murum koor daal ne diw ñun ñoo doon ànd ak moom di góorgóorlu ci yoonu yàlla faatu na xaaral ma jël kilo ceeb bi sax yóbbul ko waa këram ñun fan lañu toll ci loolu di ah bu ñuy dund rek lañ war a am suñu teeree jeex na am na ci mbokk yoo xam ne bi nit ñi gëjee seen kër mooy keroog bañ yóbbee ci armée bi suuli leen laa ilaha illa allah loolu du ànd loolu du mbokk yoon yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam danaan ànd ak sahaaba mu dee sax pour mu pour sahaaba yi dimbali sama kër mu ñëw takk soxna si pour gars yi bañ a fàtte njaboot gi ñaata ñaata yoon bi sallallahu alayhi wasallam la takk ci ay soxna pour gars yi bañ a fàtte njabootu waa jooju leen kon bu ñu fàttee bu ñu fàtte ñi seen bàyyi dee te ñu daan ànd ak seen bàyyi bu dégg bëccëg daan ànd ak seen yaay yi bu dégg bëccëg daan ànd ak seen mbokk yi bu dégg bëccëg ci may daanu daawa mbokk yi ci yàlla nañu matal yéen commerçant yi matal leen seen i balance ak seen i nag moytandiku leen wor nañu moytandiku wor nañu moytandiku wuruj nañu moytandiku xis triche di def foofu te du dëkk di wane dafa ne dëgg la te du dëkk nañu wax dëgg mbokk yi nañu moytandiku fenn ci njaay ak jënd nañu moytandiku rambaat nañu moytandiku jëw jëw tey dafa bëri te ku bëgg a jëw rek benn buntu ngay jël mooy mbokk yi mbokk yi taa yi mbokk yi taa yi mbokk mi taa yi mbokk bu jigéen bi taa yi mbokk bu góor bi taa yi mbokk yi taa yi di jëw rek dañ moo tindi ku jëw nañu bàyyi yaramu julli li ñuy ñëw ci ñëwtee yonent bi nee na al xiibatu ashaddu min al zina jëw moo gën a bon njaaloo te jëw kenn mënu la koo baal ku dul ki nga jëw yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na nañu moytandi ko rambaat di jaxase ay nit dëkk baa ngi ni kenn mënut a ànd jullit yi mën dañoo la nag jaxase jaxase ba jullit ñi mënuñu ànd yow lu tax nga ne ci jàkk ji non ah jàkk ji temps yi bàyyi rek parce que ma dégg moom fekk benn waaye moo ñëw jox la information yow lu tax nga gis ci mbooloo mi non mbooloo mi temps yi yow lu tax nañu mooy ci ndiku rambaaj soo déggee dara noppil même bu dee dëkk noppil kenn du la rey parce que da ngaa noppi mbaree ma koo dëjjuloo ay góor mbalaa dum nan mbaree moom koo wii ji rey leen ko dafa am lu mu xalaat kenn mosu koo dégg ci àdduna te doo ko mos a dégg mbokk yi nañu moytu fenn nañu moytu jëw nañu moytu rambaaj nañu moytu wor nañu taxaw ci diggante waa dara lu bon ñëpp tey dañoo noppi li tax mbedd mi mel nii mooy nit ñee noppi nit ñee bàyyi waxu yonent bi mu ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman démb bu ñu nekkee ci rajo yi di wax nekk ci mbedd yi wax nekk ci oto yi wax nekk ci jàkka yi wax nekk ci kër yi wax nekk ci marché yi wax boobu lu bon mel ni mais tey ñëpp ba noppi koo wax mu ne boo bi privé lu la boo man damay maan gis yonent bi nee na saakitu anil xaq seytaanul arra ku gis dëgg noppi waxoo yow seytaane bu mu mëga ku gis dëgg waxoo ko yonent bi nee na yow seytaane bu mu mëga nañu nañu mooy tandiku mbokk yi ibadallah ayyuhal muslimun i'tasimu billahi watma'innu biqurabikum minhu faman kana allahu ma'ahu fa kayfa yaxaaf wa man kana allahu xasimahu fa kayfa ya'man nañu góorgóorlu jege yàlla suñu jege yàlla ci la ñuy am kóolu te ci la ñuy am dal ci jege yàlla ci ngay am am ci ngay am dal ci jege yàlla ku jege yàlla du tiit ku jege yàlla du jàq ku jege yàlla du ragal wala tax xam ne yàlla mooy xuloog yow ban avocat moo lay laaj ci kanamam moom tabaraka wa taala ibadallah mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala su koor jeexee woor jeexul su xiyaamul léegi jeexee ñaar bi la guddi du jeex nañu góorgóorlu ñu ànd ak yàlla tabaraka wa taala ñu gëm sunna yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibadallah yéen jaamu yàlla yi nañu jublu suñu boroom nañ ko jox suñuy lépp suñu xel suñu xol suñu ruu suñu lépp nañ ko jox boroom bi tabaraka wa taala allahumma unsur almujahidin alladina yujahiduna fi sabilik li i'dai dinik wa ila'i kalimatik allahumma unsurhum fi falastin allahumma unsurhum fi kashmir allahumma unsurhum fi shishan اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم سدد سهامهم وآراءهم واجمعهم على الحق كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم دمر اليهود والنصارى اللهم عليك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وكل امين وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم bisu tey bi bëgg nañ mbokk yi ñëpp nuyante baalante ak doqoo génne li ci xol yi te muy ay tilim tilim feesalaat xol yi bëgg yàlla bëgg lislaam bëgg Seydina Muhammad bëgg sa mbokkum jullit bëgg sa mbokkum jullit al muslim axul muslim allahu akbar al muslim axul muslim kan moo doon wax wax jooju Muhammad jullit kan mooy mbokkam du sa baay du sa ndey du sa mbokk deret yéen ci ne jullit jullit mooy mbokkam nañ leen dund hadis boobu tey ci bëccëgu tey bi ku ñu dajeel nañ ko jox ñaari loxo doxante ak moom jéggalu ko baalu ko baalu ko am ne ko taqabbal allahu minna wa minkum al muslim aqul muslim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al ghafur rahim diggante timis ak gee